balaa ñuy bañ a déggoo fukki million yi nga xam ne dugaloon nañ ko ci programme d'appui secteur programme d'appui sectoriel microfinance et économie sociale et solidaire bi mbas mi ñëwee débogale yëpp dañu tàcc damay bañ ñu jóge fi ñu ne ministre may nañu fukki million <laughs> mais yooyu dañ ko joxe ba pare leneen li nga xam ne moo waral ñu ñëw te ngeen euh, mu muy firndeel taxawaay bi nga xam ne Demba Galle yi am nañu mooy suñu teewaay fii tey ndax dafa am programme bu am solo boo xam ne Feed the muy programme boo xam ne yaakaar naa yéen a ma ko gën a xam ñu koy wax kawaloon dafa nekk di ko def loolu muy def nag ñun waa ministère bi dañu jàpp daf ñuy gunge ci suñu liggéey ndax programme bi muy def di dajale ay jigéen ñu nekk kuréel ñu tuddee leen debbogaale ñu am ay jumtuwaay yuñ leen jox ñu mën ci liggéey lii génn ci liggéey bi ñu jox beneen groupement loolu mooy économie sociale et solidaire moo tax programme boobu ñu tàmbalee ko jàppale bi ñuy organiser salon tournant économie sociale et solidaire bi ñu gisee loolu également ci mbas mi liggéey bi xaw a taxaw ci Debbo Galley ci la ñu ñëw appuyer léegi nag ñu ne ñu am na programme bu am solo bu ñu war a lancer mooy placement actif d'animaux yi loo xam ne dafa jóge ci yéen ndax li tax programme bi am ba ñu mën leen tànn da ngeen doon yaxanal di liggéey di denc di def seen kees seen kees dem ba am lu takku ngeen ne lu ñuy def ngeen am nag ñu leen gunge ki njëkk ci gunge bi yaakaar naa mooy seen maire bi ngeen taxawalee loolu dafa yëkkati koom bu jóge ci commune bi mu def ci mu am ñeneen ñu leen gunge muy ay partenaires tudd nañ fi NMA Sandeuse tudd tudd nañ fi Ozara ñooñu aussi nekk ci secteur privé bi nekk ci gox bi di yëngatu jël ci li ñu am dugal ci loolu mooy RSE loolu lépp nag boo ko gisee dañ ko président Macky Sall daf ko tënk ci secteur bu ñuy wax économie sociale et solidaire te lii ñu fi def tey loolu mooy économie sociale et solidaire maanaam nit ñi ca la ne di ci yëngatu ñoom ak ña nga xam ne ay entrepreneur lañ ci seen gox ñu leen di dimbale président Macky Sall dafa ne na fay loxo état di yegg kon tey sànq bi sëñ bi di ñaan dafa ubbee lu am solo sëñ bi bi muy ñaan dafa ne ñi ngi tàmbalee fii ci Taïba Niassène waaye mi ngi ñaan mu génn modèle bi yéen ngeen am ci ndam mu génn law ba génn waxul sax Nioro mais mu génn Kaolack dem ci yeneen région yi ma jàpp ne sëñ bi ñaan bi dafa nangu te loolu bu amee du ñu bett ndax nag fii ñu ne dëkk bu tedd la te ku sunu sunu borom may nga ñëw fii loo fi yéenee jàpp naa ne tawféex mën na cee am moo tax ministère bi dina accompagner yeneen debbo gàlle yi nga xam ne jotuñu leen tànn debbo gàlle yi ci commune bi yëpp dinañu toog ak programme bi foofu nag ma ciy ñaax NMA ak Zara pour que yeneen groupement yi des parce que nee nañu 48 debbo gàlle moo fi am 10 la ñu kon des na 38 ñun ministère bi dinañ teg mise au départ pour fanweer ak juróom-ñett yooyu ñu am li yeneen Demba Gall lay am léegi nag li siy des mooy balaa Zara di dem ak NMA Sanders di dem ñoom tamit ñu jël engagement mën a accompagner fanweer ak juróom-ñett yooyu ndax nag RSE bi président Macky Sall daf ci bëgg lu am solo. nee na nañu xool nu RSE bi di gëna a dëppoo ak kuréel yi ak population yi li ñuy soxla ndax bëri na loo xam ne nit ki dina am yéene def xëy na du méngoo kan kay defal la mu soxla waaye tey fii boo xoolee ñoom seen partenaires yi liñ leen defal lu am solo la ndax bu Kawloor ñëwee ne nañ leen wutal gétt ñoom NMA ñu ñëw indi Euh, aliment Zara ñëw indi dolli ci kees gi mais bi ñu boolee suñuy doole moo tax ñu mën a def moo tax mu mën a yaatu loolu nag la loi bi xaatim nu muy gën a yaatoo nu muy gën a yeggee ci askan bi te loolu pour ñu def ko dañuy daal di ànd di xàccandoo di ndóodóor ndóor loolu mooy économie sociale et solidaire looloo tax ma ñëw fii tey ndax nit ku nekk ci dara di ci kër-këri di ci yëngatu gëm ko bu dara doonulee dara boo amee autorité yoo xam ne dañ leen di jàppale ñëw fa day yomb kon monsieur le maire maa ngi lay félicité di la encourager ci action yi nga xam ne yaa ngi koy def ndax bi ma recevoir waa programme bi directeur programme bi Kawlor moom ak équipe bi mu àndaloon lañ ma njëkk wax mooy vraiment maire bi xaar xaaruñu ci dara dugal na loxoom bu baax a baax a baax ci programme bi kon lu mel noonu bu amee nga ànd ko ak sa conseil municipal ndax yaakaar naa ñoom ñoo wax fii ne yéen ñëpp benn ngeen yéen a ngi xàccandoor di dóorandoor kon bu ngeen àndee ci loolu yéen ñëpp day daal di jaadu ñu ñëw fi encourager leen féliciter leen kon suñu service yi dinañ xool ak waa programme bi parce que phase pilote la wax fukk yi ñuy tàmbalee dañuy xool ndax programme bi dina dem wala du dem kon na fukk yi ñuy njëkk tànn xam ne li gàll seen ndodd mooy ñu def mu baax ñu def mu jub ba nga xam ne fii ak weer wala lu ci topp dinañ mën a finaliser ba yeneen groupe Debbo Galle yépp am ba programme bi mën a bén génn biir Kaolack kon nag maa ngi leen di sant di leen gërëm man ak sama équipe yépp ci kóolute bi ngeen ñu defal ak ci invitation bi ngeen ñu invité pour ñu ñëw fii àndandoor ak yéen et je déclare lancé le programme de placement d'actifs animaux de la commune de Taïba Niassène je vous remercie. ndax euh, mi ngi ànd ak ñun. ci comité d'achat bi nga xam ne nii moom lañ taxawaloon ñu ànd ceeg euh, ñu ànd ceeg GRL communautaire bi ci njiital Babou Diop Thiam ñoo àndoon di jënd animaux yi ci bés ni ki tey bi ñu ngi am 200 euh, animaux de plus yoo xam ne nii ñu ngi ko war a remercier groupe des Bogalé yi nga xam ne ñoo nekk en face test te groupe des Bogalé yooyu ñi nga xam ne ñoo nekk en face test bu ñu leen dexee remise des animaux yi dañoo fas yéene mu laal 48 groupe des yi nga xam ne ñi ngi ci pegg bi te bokkuñ ci à phase test bi te loolu li koy def mooy képp koo xam ne nii jox nañ la ñaari animaux da nga fas yéene bu juree nga jël ñaari yim jur jox sa moroom mu jox moromam ba mu daj groupe des Bagall ba laal ñi nga xam ne nekkuñ ci groupe des Bagall yi ba laal 15 communes yi nekk ci département bi laal département bi yëpp nga xam ne nutrition dana fi jógee carrément.